never slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a donc maa ngi leen nuyu encore une fois di leen ziar donc vraiment di man mbégte euh, jàkkaarloo yéen donc ni ñu ko xamee si àdduna bi octobre dañ ko dañ ko dañ ko réserver le mois de la femme muy octobre rose pour euh, nit ñi di mën a def dépistage gratuit ci cancer du sein ak du col de l'utérus tey nag ñu ñëwoon fii ci centre socioculturel bu E en tant que partenaire euh, suñu sœur di Anta organiser cette journée ñëw euh, mu convenu ñu si en tant que partenaire ñu def une forte mobilisation au niveau de la Médina pour permettre à nos à femmes euh, sur une tranche d'âge sur une tranche d'âge entre vingt euh, ba cinquante ans bu ñu mën a def ce dépistage de manière gratuite. donc déjà bu ñu xoolee xam ne feebar bi vraiment am na impact significatif fii si Sénégal ndaxte moom mooy en terme de cancer moom mooy li ñuy wax. ci prévalence ak taux de mortalité yi muy causé ci femmes yi vraiment c'est énorme parce que boo xoolee chaque année euh, d'après l'ISCA dañuy am daanaka deux mille soixante personnes yoo xam ne dañuy atteint ci cancer du col de l'utérus ci deux mille nit yoo xam ne atteint nañ leen mille trois cent décès la ñu am chaque année boobu mooy pour cancer du col de l'utérus pour lu ñuy wax euh, cancer du sein dañuy gis ne chaque année mille trente huit nouveau nouveau nouveau cas la ñu am te si 38 nouveaux cas yi day am 900 décès donc muy ay chiffres énorme yoo xamante ne nit ñi xëy na manque def dépistage à temps la wala manque tey lu ñuy wax def seen vaccination wala def suivi par rapport ak maladie boobu moo koy parce que comme xam nañ ko Sénégal moom dafa xaw a ragal feebar ni les gens ngi nga gis nit koo xam dafay def lu ñuy wax prévention ñoom dañuy xaar ba feebar bi tëral leen ñu soogee jug dem hôpital pour ñu diagnostiquer leen xool la moo leen dal te en général dafay faral di trop tard tey li ñu defee si mois d' octobre bi yëpp te à part octobre dafay amaat sax yeneen mois mais octobre dañ ko réserver vraiment pour nit ñi di mën a ñëw def dépistage bi si gratuité donc nit ñi dañ si war a dem bañeeti ragal bañeeti am benn jiixi jaaxa parce que feebar bi dañ koy faj ndaxte ku xam sur deux femmes dañuy gis ne benn bi war nañ ko mën a faj donc dañ see nit ñi teel jug saytu leen ku si am feebar ñu mun la toppatoo traité la ba nga wér si jàmm gis nañ fi ay nit yu bëri yoo xam ne tey ñun nañ fi def intervention te ñooñu feebar daf leen daloon te tey alhamdulilah wér nañ ci jàmm ak la journée vraiment euh, c'est bien passé organisation bi euh, ci ñaari salle salle bi nga xamante ne salle dépistage la foofu ngay dem pour ñu xool ndax am nga ko wala amoo ko avec le matériel qu'il faut ak salle boo xamante ni salle conseil la boo xamante jigéen ñi dañuy def seen partage d'expérience am na ñoo xamante ne sax na ñu am cancer bi. mais yàlla daf leen dimbale ba dañ ko teel a détecté teel ko décelé euh, ñoom dañoo teel def seen dépistage ba tey aujourd'hui yàlla may na leen ñu tane ak jàmm donc euh, vraiment euh, amatuñ ko loolu yëpp c'est des messages yoo xamante ne jigéen ñi dañ ko war a xam dañu war xam ne dañoo war a dem teel a def seen dépistage waruñ sax xaar octobre rek parce que octobre moom la mois buñ leen buñ leen buñ leen comment dire buñ leen jagleel waaye boo xoolee am na yeneen onze mois yoo xamante ni nit mën na cee am ay feebar te feebar la boo xamante ni c'est une maladie silencieuse maladie boo xamante ni doo am sax méttit méttit waaye dafay nekk sa yaram di évoluer di évoluer di évoluer ba maara day taal donc lépp loo xamante ni yaa ngi koy sentir as as tout wala nga bañ a sentir sax demal nga dépisté wu ñu xool la xam na am nga ko wala ko amoo ko boo ko amee bu fekkee yàlla loolu dogal ñu teel ko décelé médecin yaa ngi fi xam nañ xarañte mën nañ ko faj donc mais dañ ko war boo ko teelee direct boo ko teelee yëg rek teelal teelal dem ñu ñu ñu xool la waaw ah, feebar bi nag moom fils man maa ko détecté sama bopp feebar bi maa ko détecté sama bopp mu nga njëkkee détecté euh, kyste lañ ma wax mais may gis muy évoluer ma xam ni kyste bi évoluer day déplacé wu ma defaat beneen diagnostic euh, ñu ne ma kyste ñu ne ma cancer la ma traversé parce que Mauritanie laa jóge woon après ma ñëw fii Sénégal defaat beneen diagnostic ñu gën a confirmé ñu ne ma cancer la ma commencé faju nag euh, affaire bi dund naa ko maag sama famille maag samay doom metti woon na mais yàlla defal na ma ci sutura parce que bi ma koy njëkk a gis deuxième diagnostic civique bi ma ko gisee sama benn xarit bu ñuy wax Awa Diop moom laa dajale mun ma lan mooy cancer cancer du dara dafay wér boole ma ay nit yoo xam ne faju nañ ba wér mun ma ko naa la boole ñoom ñoo ñu wax ma rassuré ma moo tax à cinquante pour cent tiitu ma woon à ce point ak dama am imaan maay suñu taawu kër lu bëree man këf këf yóbbu ma dem leen yóbbu ma kaay leen toog toogloo ma moo tax lu bëri daal ma mën ko supporter ci maladie bi mais li may wax sama moo ñaax sama moromu jigéen rek mooy nañ dem dépisté wu fagaru moo gën faju parce que feebar bu métti na te bëgguma man li mu dal mu dal samay morom moo tax may génn di wax ci partout di génn bañ a nëbb sama kanam parce que temps boo waxee kaay lañ wax ci cancer ñu bëri dañuy def bandage seen kanam wala ñu wane ginnaaw di wax ñuy dégg seen voix mais ñun man bokk naa see jigéen yi nga xamante ni dañuy génn wane seen bopp ndax suñu morom jigéen am courage génn dem faju parce que feebar bi day wér génn leen ngeen faju yaay booy léegi ñàkk xam wala ñàkk xam fa ngay jaar waral mu sonal jigéenu Afrique particulièrement jigéenu Sénégal te nag ñun ñu ñëwoon avec mairie point E organiser journée de dépistage bu cancer du col de l'utérus et euh, des du sein liñ ci jublu mooy jigéen bu nekk mu xam ne dépistage am na te dépistage mooy prévention prévention mooy fagaru te fagaru moo gën faju ci nan lay dépisté woo nan lay dépisté woo ci cancer du col nan lay dépisté woo ci cancer du sein ni muy dépisté woo ci ñaari cancer yëpp mooy di toppatoo yaram di saytu yaramam di dem ci agent de santé bu ko gën a jege muy sage-femme bu muy ko muy infirmier mu won ko ni muy defee autopalpation des seins mooy du xool yaramam euh, weenam yi heure bu gisee réglam ba pare semaine bi ci topp pour xool ndax amul benn anomalie amul lenn loo xamante ne nekk na ci te war caane pour mu teel koo alerte ñu jël ko en charge balaa mu ko julal loraange bu nekke col boobu tamit dépistage bi ci lan la bi ñuy def ni IVA abi IVM dem ñu saytu ko ci sage-femme wala ko bu weesoo loolu xale jigéen ñi ñu nekk ci diggante 9 ans ba 14 ans politique gu Sénégal am nañu vaccin boo xamante ni daf leen di lutter contre cancer du col de l'utérus boobu et c'est gratuit et dans toutes les structures du du Sénégal muy xale jigéen ñi de 9 à quatorze ans daf leen di dimbale ci li nga xamante ni ñun en tant que seen sœur ñun en tant que seen yaay amuñu woon opportunité boobu donc na ñëpp dem ci loolu na ñëpp jël seen i doom yu jigéen dem ñu vacciner leen pour ñu muccal leen ci feebar cancer du col bi cancer du du sein bi nag heure boo demee prestataire wala euh, sage-femme wala infirmier dina la wax noo koy defee nga moytu cancer du col de du du du sein. ne en octobre rose te ku nekk bëgg nga sa gox. population bi nekk en bonne santé te jigéen ak xale dafa bokk ci population bi te ñoom ñooy avenir u demee kon bu ñu leen fagaroo ba wal leen ni ñuy fagaroo ci ñaari cancer yooyu dina tax ah une bonne et une meilleure santé pour toute la population. wàllum santé bokk na aujourd'hui si les clés de phare que la fédération porte ndaxte on n'est pas en notre premier événement de santé yàggoon nañu def euh, ces ces ces genre de manifestation même suñ ko doon def dans dans dans le formel daan nañ dem bokk ci marché yoo xam ne LISCA daan na ko organiser pour vraiment xeex euh, lu ñuy wax euh, cancer du sein ak cancer du col de l'utérus mais bu ñu xoolee chiffre rek loolu war na mën a tax ñu ñëpp ñu ñu béy ci suñu waar que ce soit acteur de développement acteur engagé ou koo xam ne sax c'est un citadin nekk si gox bi war na mën a tey euh, waxtaan ak ñoñam waxtaan ak ay xaritam waxtaan ak ñu mu bokkal dans l'immédiat gox bi te bu bu bu beneen bi bu mu ciy dolli moo di. cancer du sein yemul ci jigéen ñi rek ndaxte gis nañ am na ay góor yu mu commencé dal parce que tey euh, détecté nañ à hauteur de un pour cent euh, de hommes yoo xam ne tey ils sont été atteints de cancer du sein donc góor yi nekkatul rek cancer du prostate wala cancer des poumons donc cancer du sein tamit góor war da koy am te détecté nañ un pour cent des personnes yoo xam ne am nañ ko donc ñu ñëpp war nañ ci mën a fargu waxtaan seen njaboot gi dalal seen xel nag ba pare su ñu mënee sax programme ñu koy teel a dans le bas au niveau scolaire pour que les gens Euh, cette crypto dindi tey euh, pression bu ñu am ci yenn feebar yi ñu xam ne feebar la comme yeneen feebar yi te feebar dañ koy traité ba mu wér. jigéen góor yi sax te aujourd'hui ñoom ñoo ñoo ñoo war a war a téye wala seen i wala seen i rak ak ñoom ne gaañ dem nga dépisté wu. donc loolu mooy lu am solo tey gis naa ko fi ay cas am na samay xarit yu ma woo ne ma euh, ànd ak sama jabar fan lak fan lak fan lak parce que gis nañ ma may may may may wax ci ci ci ci ci ci feebar bi. donc euh, ñu si bëri woo nañ ma ànd ak seen i jabar ñëw dépisté wu loolu mooy loolu mooy yoon loolu mooy lu am solo te loolu dafay jox jigéen bi fit ak courage donc loolu tamit lu am solo na ko góor yi bàyyi xel góor nañu bàyyi xel ci loolu di accompagner seen i seen i jabar ak seen i mag seen i rak ñun ñun ay porteur de voix nañu ñun euh, euh, macha allah donc tey du ñu yem fii rek comme lu ma la wax li yemul ci benn mois rek wala ci benn fan donc dafa war a nekk à l'année donc man saa yi ma soxlaa pour li nga xamante ni mooy Euh, sama xam-xam ak wala sama sama jot ak ci sama sama pas sama présence dinaa ñëw euh, teewe ko ñu waxtaanee ko xool lan lañ ci mën a apporter li nga xamante ne mooy luy luy euh, luy saafara jàngoro